asalaamaaleykum suñuy mbokki auditeurs yu banlieue FM la première rajo digital à Saint-Louis kaddu gi di bàyyeekoo fii ci Pikine Saint-Louis ñoo ngi leen di nuyu ak sunu mbokku téléspectateur ak internet yu ñuy suivre si Facebook ak YouTube ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal te di leen ñaan la ngeen di partager bu baax a baax ndax abonné yi gën a bëri di dellusiwaat tey ci sunu deuxième édition jigéen ak jamono. tey ñu ci ànd ak euh, soxna ay Mbaye Aida Mbaye nanga def yaa ngi si jàmm nu ngi lay nuyu di la dalal mm-hmm. di la bàyyi auditeurs yi it nga nuyoo nga présenté wu mm-hmm. wax nu un peu yaay kan mm-hmm. jërëjëf euh, soxna si maa ngi lay nuyu bu baax ma madame Guissé di nuyu tamit mbooleem auditeur auditrice ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si digital bi tamit di déglu wala di seetaan di nuyu staffu banlieue euh, TV banlieue FM euh, di si jiital nag monsieur gisee mi nga xam ni nekk na sunu collaborateur au niveau de la rajo Ndar FM pendant temps di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu te dina sargal man maa ngi tudd madame Aïda Mbaye Dieng maa ngi nekk adjointe au maire. si commune Saint-Louis euh, nekk aussi jàngalekat bu retraité euh, nekk di milité si parti bu ñuy wax parti LD LD nekk si secretaire généralu fédération bu Ndar voilà foofu laay yemagum daal. Ah, kon nag. Euh, comme ni ngeen ko déggee rek euh, madame Aïda Mbaye ñu ngi lay dalal ak jàmm ci rajo bi mm-hmm. euh, donc si je comprends bien enseignante nga woon mm-hmm. avant ngay euh, nekk adjointe maire mm-hmm. est-ce que doon wax tuuti ci ci ci ci sa période d'enseignement boobu nan la demee ak lan moo si nekkoon sa taxawaay nan la demee woon waaw man professeur science de la vie et de la terre la maanaam li ñu daan wax science naturelle loolu laa doon jàngale eh, bi ma génnee université dem école normale supérieure dañ ma affecté lycée Blaise Diagne lycée Blaise Diagne fa laa nekk nag ba 87 ba après mu jóge fa nag ñu affecté man Ndar sama sama dëkk waaw ma demandé sax pour dellu si Ndar Eh, ñu yóbbu ma Dégol Dégol ñu déployé ma si CM Guiabert CM ga presque fa la retraité eh, bu may génn fii ñu bare dañu may wax madame Dime madame Dime parce que jamono yooyu sama borom kër bu njëkk yàlla na ko yàlla yërëm Dime la santoon ba léegi nii bu ma génnee bu nuy mais surtout bu nuy def campagne bu nuy fu ma romb dañ naa madame Dime Eh, léeg-léeg le maire Amadou Mansour Faye daf may tooñ ni ma xanaa yow jàngal nga ndar yëpp mais nag comme dama fi nekk 87 ba 2016 laa retraité kon dana bare ñu nga xam ni jaar nañ sama loxo. Mhm. jàng ma si sant yàlla bu baax ndax yi tamit jàngale bi c'est vrai que ba may dem. awma woon noonu conviction bugguma woon jàngale yooyu mais dafa am problème yu amoon sunu papa génn àddina kii fale que man ma dem dugg si jàngale bi ndax euh, mën a jàppale sama yaay mais bi ma duggee rek am amuuru profession bi di def nag sama sama liggéey na mu were ni que ni niñ ma ko sant daal ma ko doon defee ba defe naa ni tey jii du ma taseeg sama benn élève si sëgg macha allah macha allah donc euh, loolu am na solo lool euh, li ñuy wax jigéen ñi moom macha allah mosunoo des ginnaaw mm-hmm. donc yow nan nga duggee ci politique bi donc d' abord vous êtes Saint-Louisienne née à Saint-Louis. waaw man maa ngi juddoo Sànnaar. si ah, commune Gandon fi université bi ne. ok euh, ndax man doomu Toubé laa. Toubé mooy Sànnaar Gandon ah, Mbàkk Toubé et cetera. Mm-hmm. foofu laa bokk. Mm-hmm. mais samay école primaire maa ngi defee eh, François Asman. Mm-hmm. Euh, sama waajur doon samay waajur doon ay politiciens yu mag. ndax defe naa ndar ñëpp xam nañu góor gi ab Abba mbay mhm. eh, ñëpp xam nañu bien que sam papa politique na sen louis mais après nag mu nekk député Dagana mhm. Dagana nag ak Saint ndax Saint-Louis boobu euh, département fictif la woon mhm. noo englobé woon sam assan Assane Maguette nekkoon député eh, bi Senghor ñëwee doon tàggoo si bay di dem ba ñu gunge ko mu génn. moom muy dellusi di ñëw fekk si nu Dakar. foofu la ko yàlla may mu def accident si yoon bi yàlla moom ko foofu koon nga jàpp rek ni man mii. Mhm. dama juddu si politique. dëgg eh, samay waajur ay ay parti socialiste la ñu bokkoon euh, mais ni ma gisee woon samay waajur di sonn. Mhm. dama doon wax man daal man duma politique mukk politique moom duma ko def. Mhm. mais bi ma nekkee école normal avant ma dugg école normal suñu papa sama sama benn rakku papa këram laa yaroo muy denc aussi sama mag euh, sama beneen mag la muy ministre Khoudia mbay te nekkoon meeru Gandon suñu ñaari papa ñoo bokk ndey ak baay dafay ñëw foofu nuy waxtaan lu bare même avant loolu bi mu nekkee lycée Ahmed Fall damay dem si moom toog di waxtaan moom déjà dugg na si politique dans la clandestinité ba ba jeex. Mm-hmm. mais mu may waxal di ma wax di ma wax man xam naa ni wax yi ma doon wax loolu moo ma moo ma gën a impressionné mais bi ma demee école normale fekk na juste moom muy génn war a dem Europe di jàngi. Mm-hmm. daf ma topp naan ma ñëwal dugg LDMPT la tuddoon. ñëwal dugg dem ma ne déedéet du ma dugg dugg ma politique ma man bugguma politique. Mm-hmm. mais xam nga milieu école normale euh, parti politique yëpp nga fa et puis sama sœur boobu ba muy dem xam naa ne boole na ma ak ay nit yu nga xam ni ñoom it dañ ma teg pression pression ba nga xam ne mm-hmm. dama ne waa d'accord danaa du ma du ma mais damay kii rek damay nekk daf booba fekk na parti de gauche yi da ngay nekk stage genre stage daal mm-hmm. ba ñu xam ne yow mii mën nga vraiment mm-hmm. dugg si parti de gauche ngay soog a adhéré man leen man duma ma nag damay damay dugg rek xool sincèrement diggante adesion baak nekk euh, membre actif xaw ma na fan la jaar <laughs> mu doon 1983. ah d'accord kon avant ma dem te euh, lycée technique. ba mhm. avant ma génn école normale fekk na ma déjà ma adhéré commencé politique. commencé politique donc ay les années 1980 yooyu nga commencé. 83 83. Mm-hmm. nga commencé dugg ci politique bi. Mm-hmm. Euh, bon nan nga jàngatee yow moom comme yàgg nga ci <laughs> nan nga nan nga jàngatee jigéen. Mm-hmm. nekk jigéen. boole temps yooyu yaa ngi ci enseignement bi. boole enseignement bi ak sa adhésion politique bi nan nga dundee politique bi. ak lan moo ci sa parcours ba yegg si fii ndax parti bi nga nekk léegi L. Euh, parti bi LD bi nga nekk. Mhm. fi nga jëkk nekk rek wala am a beneen parti boo jaaroon. fa laa nekk foofu mhm. laa mas a ne. Mhm. fa nekk ba léegi. mais du di politique rek ak jàngale rek. xam nga bu njëkk booy politique it da ngay syndiqué. ma bokk itam waaw ma bokk ma ma nekk syndicaliste. mais aussi ma bokk société civile. Mm-hmm. société civile maanaam lépp lu nga xam ne mi ngi xeexal dara doomu aadama. Mm-hmm. ma si yëngatu fii nu toll. Mm-hmm. man maay présidentu COSEF. COSEF conseil sénégalais des femmes. ku ngaa xam ni mi ngi xeex pour promotion jigéen. mi ngi xeex pour jigéen am place ba kawar war si instance de décision bi. man ma nekk présidente bi au niveau de la région. ma nekk yi tamit beneen kuréel bu ñuy wax respect ko mu nga xam ni jigéen ñi ñoo booloo. pour fexe ba nga xam ni jàmm dafay am ak sécurité si diiwaan bi si diiwaan bi mooy Afrique de de l'Ouest waaw man may mm. présidente zone zone la région de Saint-Louis ak yeneen yu nga xam ne waaw <laughs> waaw lañu comme ni ma koy waxee rek jigéen ñi moom jàmbaar lañu jigéen ñi touche euh, partout lañu waa touche partout lañu waaw euh, mais li ma li ma li ma gën a fësal mm-hmm. ci politique mm-hmm. moo di dama doon politique nii kenn xam moo woon nekkuma woon sax si instance dirigeante sama parti mais 96. bi ñuy mm-hmm. def élection pour dem vers la régionalisation. Mm-hmm. boobu man candidatu LD laa woon si commune Saint-Louis. je peux dire que je suis la première et jusqu'à présent je suis la seule femme. qui fut candidate. Mm-hmm. de Saint-Louis. loolu moo ma dugal si conseil municipal. loolu nag boobu ba léegi maa ngi ci conseil municipal bi. 96 mm-hmm. boobu ñu duggee boobu bu ma duggee oppose opposante laa woon. Mm-hmm. Euh, nekk fa ak sunu papa Abdoulaye Diaw Chimère moo doon maire. Mm-hmm. mais gëm naa ne man liggéey naa fa bien que opposition la xooluma ni man opposition laa damay yàq damay xool ni bu ma xasee ba dugg ci kuréel boobu. am na bu doon fukki voix sax am naa ñu ma faral kon dama ko war a delloo ñi nga xam ni ñoo ma ñoo ma voté ba ba ma dugg mhm. loolu nag bu may dugg ci mairie bi mhm. damay euh, simmi sama mbubb bu rose boobu mhm. maanaam mbubb LD <laughs> LD ma dugg comme conseillère tout simple lépp lu ma fa war a liggéey ma liggéey ko fa ràññeewu ma woon sax ndax papa Ablaye Diop mook sam ab Abba ñoo daan ànd di politique mu jàppe ma doom en tout cas bu nu amee session daal dana ma tooñ dana ma tooñ ndax bu doxee ay mbay Mbaye ay da mbay man ko ay Mbaye Dimi mun ma boo fi santee Dimi nga ni mott dem sa Louga wuti mairie Louga <laughs> teg ma doom nag mhm. mais aussi man may def sama liggéey comme kii ndekete moom wax na secrétaire municipal bi ay Aïda mbay mii ak keneen ko tudd Sayer Diop papa la si man mi ngi dëkk Ngale ñaar ñii daal bu bu dara xewatee te woowu la danaa danaa danaa danaa la dàq ndax ñii liggéeykat lañu man xaw ma si dara ñu Abdoulaye Wade jël nguur gi daal di euh, def euh, délégation spéciale ñu kii mais bis ba nu demee 2002. Mhm. coalition euh, ak PDS ak yeneen parti yëpp. Mhm. ma Masseck Ndiaye gañe mhm. nu gañe ba nag dama si dama si fës lool ndax booba PDS dafa xaajali koo ñaar. Ousmane Masseck Ndiaye Ousmane Ngom. Mhm. ah léegi bi ñu ñëwee ñu témboo ñoom ñaar ci biir ville yëpp ñu témboo fa. Mhm. Bango ba ma dëkk moo def si 600 voix d'écart Bango ba ma dëkk man moo def 600 mhm. voix d'écart bi ñu defee décompte yi tribunal. 600 voix la Ousmane Masseck Ndiaye rawe Ousmane Ngom. Ousmane man daanaka dama contribuer bu baax. si gañaayu Ousmane Seck loolu te ba ñuy dem booba fekk na man jàppe wuñ ma sax ku nga xam ne war na fës wala kii yooyu nekk nekk présidente commission sax xëy na mënoon naa ko bañ mais loolu moo tax ma nekk ab deuxième adjointe au maire. ah donc si tamu Ousmane bi nu ñëwee yi tamit 2009 ak euh, coalition Bennoo Siggil Sénégal. Mm-hmm. boobu ji tamit. ak Bamba Dieye woon boobu itam ñu ñëw ma nekkaat deuxième adjointe au maire. d'accord 2014 la nu ànd ak Benno Bokk Yaakaar boobu ma ñëw nekk première adjointe au maire. 2014. 2014 ba élection yi passé 2022. Mhm. léegi ma nekk cinquième adjointe au maire. Ah, d'accord comme niñ koy waxee rek euh, kii nga sama lañ parce que yooyu yëpp bëggoon naa la ko laaj mais englobé nga ko yëpp ci sa biir réponse mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax rek si jigéenu Sénégal ma suñoo des ginnaaw sa parcours rafet na. te dëggal nga sa bopp ci li nga nekk ba tax nga si fii naka nga ñëwee première fois bi ngay nekk adjoint maire naka naka naka nga dikkee. naka nga nekkee adjoint maire daal. déjà xam nga expliqué naa la résultat yi ma am. Mm. résultat yu baax yu nu am. suñu gox uh-huh. moo tax déjà. moo tax ñu xalaat ni man mi war naa nekk. war naa war mais loolu yi <laughs> tamit dafa difficile de. c'est pas facile. c'est pas du tout facile que bi nu demee ba dara desul lu may nekk adjoint au maire. Mm-hmm. gis nga euh, wuti wuti mairie moo gën a yomb positionné wu si bureau municipal. foofu lu ne dana fa xaj. lu ne xeexoo yu metti lay doon <laughs> mais jamono yooyu pour ma nekkoon premier. pour ma nekkoon deuxième. dama exiger ni pour que parce que man mii man maa maa tax. tey jii lii am. kon man maay nekk premier adjoint kooku bataille bu rude la woon sa biir. Ah ah waaw mais ah finalement ma nekk deuxième adjoint. Oh, macha allah actuellement quatrième adjointe nga. cinquième sax cinquième. cinquième. Mmh. Mmh. Euh, bi ma première adjointe yi tamit euh, du temps de Bamba Dieye yi tamit dama exiger woon nekk première adjointe ndax dama gëm ni. liggéey ba sa ëpp man ak Bamba Dieng noo ko defoon si campagne bi ñeneen ñëpp gëmuñu woon ni nun dañuy dañuy gañe mais ñu gañe ku si ne bëgg a positionné wu. Mm-hmm. foofu itam xeex nañu xeex mais xam nga daanaka benn benn ñebbe laa woon si cin. Mm-hmm. Eh, góor ñi rek ma waroon samay xeex dafay jafe. Mm-hmm. Eh, moo tax ma ma ma ma nekk deuxième adjoint au maire eh, en 2014 itam. xeex na de xeex la nag ndax am na ñu nga xam itam bëggoon nañ ko mais c'était un peu plus facile ba ma nekk premier adjoint au maire voilà. bon ñu wax tuuti ci jigéen ñi jigéen ak développement. Mhm. suñu région bi ku nekk xam na ni 70 pour cent ak ci agriculture la ñuy yëngatu. Mhm. ci agriculture la ñuy yëngatu nan nga gisee jigéen ñi ak mbay mi. Euh, jigéen ñi. dama gis ni dañu jàmbaar lool ci terrain bi jàmbaar nañu trop mm-hmm. euh, comme toujours comme jamono maam yi comme léegi mm-hmm. mais léegi dafa rawati ndax am nañu seen xarañte boo xoolee transformation produit agricole yi maanaam yi ñuy euh, defaraat ba mu mm-hmm. nekk lu ngaa xam dañ koy lekk yu jóge ci tool yi ñu koy lekk ak yooyu jigéen ñi macha allah. foo dem quartier boo dem tey jii ñu ngi def transformation yooyu. kon ñu ngi bay seen waar si côté boobu. boo demee nit si biir tool yi. Mhm. da nga fay fay fekk ay jigéen. ay jigéen yu yu yu macha allah jàmbaare waaw. Mhm. mën naa lim ko mel naka koor ko jar sa Richard Toll. Mhm. Euh, mën naa lim may mun a jóob ñoom ba ñu nekk refaan. ñoom ñëpp ñu ngi liggéey di bay mais euh, dafa mel na que nun gëmuñu nu lool. ndax bariwul jigéen ñooy gis ñu am seen suufu bopp. ci loolu laa doon dikk. jigéen ñi pour ñu am suuf day jafe. boo demee tey jii si benn village. Mhm. dañ naan bàyyi diw am na 10 hectares euh, nijaay diw am na cinq hectares ñu jël benn hectare ni jigéen ñi yéen a ko moom bàyyi diw boobu bu bayee ba pare. Mhm. jigéen ja day liggéey toolam day liggéey kër toolu borom këram bu ñu liggéeyee ba pare. ñoom taatu naaf. Mhm. maanaam yi nekk sa suufu suuf. Mhm. yooyu lañ leen di jox. kon jigéen ñi jàmbaar lañu mais kenn joxu leen seen gëdd ci bay bi bu matériel agricole ñëwee mhm. duñu xalaat jigéen góor ñi rek lañ koy jox. xam nga tey ji bu ma toogee di lim benn ñaar yooyu. xam nga ni loolu ci ay junni junni eh, doomu aadama yu nekk ci région bi di bay loolu xam nga dana kéemtaane. dana kéemtaane moom bëgg nañu nag nu am suuf suñuy bay. surtout ça bëgg nañu nu am matériel bu nga xam dafay yombal suñu bay. même boo amoon 4 hectares bëgg ka ay. xam nga 4 mm-hmm. hectares mine de bare na. si mm-hmm. jigéen. Mm-hmm. mais pour nga bay ka difficulté yi ngay jaar moom am bare ndax boo nee il faut que ñu labourer ma mais machine ba kay def ma ngay dem sa toolu diw toolu diw tool bala muy egsi sa tool fekk façon culturelle bi tardé na. ba nga xam ni bisu récolte doo am li nga bëgg a am. kon loolu nun am nañu nun jigéen ñi am nañu jafe-jafe si loolu dañuy demander ñu geesunu nag xam ne nun ñii jàmbaar lañu jàmbaar lañu si biir kër ga jàmbaar lañu si tool ya jàmbaar lañu itam si liggéeyukaay kon nañ ñu geesu bu baax woyefal nu lu bare ba nga xam ni ndax boo boo boo toogee di xool yow mm-hmm. nga toog rek di calculer mm-hmm. bi nga yeewoo ba bi ngay tëdd sa temps de travail nga nga nga calculer ko mm-hmm. daal di toog itam sa borom kër temps de travail boo paree daa xool ni nun jigéen ah noo yore yore àddina. <laughs> dëgg la moom nun jigéen ñi noo yore àddina. <laughs> nun jigéen ñi moom noo yore àddina moom moos. ndax euh, vraiment jàmbaar lañu jàmbaar lañu ni ñuy liggéeyee ak li ñuy daj yépp mënuñu ko wax vraiment bëgg nañu état bi bàyyi ñu xel ci suuf. ndax suñu région bi mbay mi moo fi ëpp solo bu weesoo napp gi mbay mi moo fi ëpp solo ñu bàyyi ñu xel ci suuf bàyyi ñu xel aussi ci matériel agricole ndax ñu mën a avancer. Euh, bu ñu jógee ci loolu ñu ngi ci weeru mars ñu jagleel nu bëccëgu le 8 mars man dama naan leen benn bëccëg doyul jigéen benn semaine doyunu benn mois doyunu année bi yëpp la jigéen moom ndax suñu jàmbaarte. tout euh, donc ci biir bëccëg boobu. Mm-hmm. lan moo ci taxawaayu jigéen. ndax am nañ ci ay avancé bañ ko dalee feeteeg léegi yàgg na ndax gis nañ ci suñu bopp ndax am na ay jéego yuñ ci def. xam nga euh, waxuma amuñu avancé mais dañu si am retard bu bari retard moo di bu njëkk bu 8 mars jotee ñu toftal kaa quinzaine de la femme ay niroole yi ay tëgg sabar ay mumbaay yooyu lan daan def mais léegi ñoo ngi xaw changé tey jii noo ngi waxtaan bu dara amee daañu am thème jël thème bi di ko waxtaane ci anam yu ne ñoo xam si plateau télévision walla rajo yi la mhm. ñoo xam ay ay conférence yu ñuy organiser en tout cas waxtaan dana jib ba ñuy mhm. tënk dara léegi daanoo yëkkati ay recommandation di ko teg ci table loolu déjà avancé nañ ci mais dañu bëgg a dem au plus profond mhm. dem ba nga xam ni 8 mars suñu recommandation yooyu ñu kii ñu koy jël en compte ñuy gën a déglu femmes yi. Mhm. déglu leen si ay rënjax rënjax ndax xëy na re bi yoon ren ma malheureusement nekkuma fi wax mhm. mais am na femme yu nga xam ni jóge nañu fi dem dakaar rencontrer ministre de la femme ak yeneen gox yeneen gox mais boo xoolee ba xool daje yu bare bare yooyu nit la muy jariñ barewul dañu bëggoon. ñu jël ay ñi nga xam ne ñoo nga sa kaw. Mhm. ñu toog waxtaane lu nga xam ni dañ koy tëgg mu dëgër këcc. ñu wàccee ko à la base ñu tas ñu mën ko jëriñoo loolu la ñu bëgg. Mhm. ndax bu ñu amee mille personnes si benn saal. Mhm. wax ja du fa bari. dëgg la wala ñu war a wax wax wax bu bu am solo du ñoom ñooy wax voilà. dëgg la donc jigéen war na mën a gën a jot àqam ak yelleefam. Euh, ndax ñu mën a gën a avancer mu bañ a nekk ay déguisement rek ay bu ñu bu ñu bu ñu tegee suñu ay kii itamit duñ ko jëmmal ba nga xamante ni jigéen ñi dinañ ko mën a jëriñoo bon euh, war nañu jigéen xam nga léegi ñu ngi waxtaanee pétrole ak gaz lan moo war a doon taxawaayu jigéen ñi ak ban cër lañ ci war a taxawee ci exploitation pétrole ak gaz boobu bu yegsee li ci war góor yi moo nu ci ci yoon góor ñi waruñu nu ëppale. ci yoon ndax tey jii boo demee si école yi. ah bu bare na fu ngaa xam ne bu ñu joxee résultat jigéen ay jiitu de. kon jigéen ñi ëpp ñu xel góor ñi. Eh, du moins góor ñi ëpp ñu xel jigéen ñi. lu góor mën a def mën nañ ko def. fa ñuy teg góor ñi nañu fa teg jigéen ñi bu fekkee ne si wàllu xam-xam la. Mm-hmm. yeneen am na yeneen yu nga xam ni. mooy nan lañ si profito pour mën a def leneen ak leneen mais leneen yooyu ñuy def yëpp foofa dem liggéey boo gis góor ñaa nga fa jigéen ñaa nga fa. kon même chose amul xàjj ak seen. Mm-hmm. même chose ak góor ñi bu ñuy xalaat bu ñu xalaat pour góor ñi rek dañuy xalaat pour góor ak pour jigéen. te jigéen ñi nag comme ñoo ngee dem di raw góor ñi léegi. Mm-hmm. ah mais nañu nañu yokkal na nañu yokkal bonus jox <laughs> suñu gëdd. <laughs> <laughs> ah loolu moom bu nu yokkalee ba jox nu sunu gëdd ndax mm. tubaar fa kàll comme ni nga ko waxee rek. Mm. fu góor taxaw rek jigéen a nga fa ci wetam. waaw ah. mm. ëpp nu ñu xereñ ëpp nu ñu xam-xam. xëy na kañ ñun danoo amagul suñu gëdd na mu waree rek. ba ñu mën a am position boo xamante ni lu góor ñi def ñun dinañ ko mën a def. mais bu ñu góor góorloo rek si suñuy journée yu ñu jagleel ak suñuy semaine ak suñuy quinzaine. ba pare nag euh, am une solidarité féminine. mangoog. nu dankaloo nekk benn. nekk benn surtout ngay yéene sa bopp nga. yéene nga ko sa moroom. loolu mooy développé loo gis ci àddina. Mm-hmm. nekk benn bokk xalaat loo yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom mooy développement. Mm-hmm. Euh, nan nga gisee violence bi violence faite aux femmes violence bi jigéen ñi ji jànkonteel bis bu nekk euh, ci biir ak ci biti tubaar fakàlla macha allah euh, ban jàngat nga ci am. lu nu gën a tardeel nun jigéen ñi. Mhm. loolu si la bokk. Mhm. violence yi dafa bare. façon violence yi dafa bare. mais bu mën a joxee benn exemple rek. Mhm. man ma bëgg tey jii dem fekki samay naw la jigéen pour nu nas ak si benn projet. sunu sama borom kër ni ma boo fi jógee ma may la baat nga obligé toog loolu. violence violence verbale la si biir kër. waxuma la nag. dóor waxuma la xas waxuma la leneen la leneen te du boroom kër ga rek environnement sax environnement sax euh, famille bu boroom kër ñoom it ña nga boo jëlee sa saag bii ngay dem guddi dem bëccëg ñun la yaa ngay moy te ñoo ñoo la ko daal di sa jëkkër looy xaar pour fase ka walla looy xaar pour wuti beneen jabar beneen jabar loolu jigéen ñi ñu ngi kiy vivre seen biir néeg mhm. mu nekk frein mhm. si li ñu bëgg a dem boole si nag nun nag nun nooy ëmba nun nooy am doom nun nooy nàmpal loolu yi tamit nekk frein bu mag a mag a mag si nun mhm. mais nag frain bu nga xam ni mën nañ ko contourner fexe ba nga xam ni daanu ëmb si jàmm euh, imbi si jàmm euh, yar sunuy doom ba nga xam ni mën nañu ëllëg nekk ay mag yu responsable mais nanu jàpp rek ni loolu ay difficulté la si mhm. beneen ba moo di wax nan ko commencement bi léegi bu ñuy wax si bay yi suñu am am barewul déedéet suñu am am barewul moo tax mënuñu nekk ay entrepreneur yu mag mënuñu liggéey xaalis yu bare mënuñu yi tamit ak accéder si yenn pouvoir yi boo xoolee si Sénégal ñaata meer a fi am amuñu lu nu lu nu campagne amuñu xaalis góor ñee am nun amuñu. il faut que nu am ñu ñu ba nu am lu nga xam ne mën nañu liggéey di di di di di man ci campagne di man accéder ci yenn instance de décision yi. Mm-hmm. loolu nga xam ne nag dañuy yóbbaale rek moo tax fu ñu neex la ñuy yóbbu fu ñu neex la ñuy teg boo demee ci ci ci instance de ñu naan nekk nañu élu nekk nañu élu en général. place yi gën a tuuti poste yi gën a tuuti la ñu nuy nan nuy jox yu insignifiant mhm. ñoom góor ñi ñu ak moo yu baax yi te loolu yëpp suñu ñàkk autonomisation maanaam moomal suñu bopp amal suñu bopp pour man a man man man di def il nous mhm. faut il faut que ñu tàggat nu mhm. ba nga xam ne daanu nekk ay femmes entrepreneur ay femmes yu nga xam ni accès dañu sa kaw a kaw a kaw si yenn institution yi am nañu ay femmes entrepreneur ku mel na que maam Faat gi Kayre. Mhm. ma entreprise la yore. ak ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen mais danu bëgg mu multiplier wu multiplier wu. ba nga xam ne ñu gën am doole daa daanu gën a am doole. Mhm. doole jooju ñu am nag waxuñu dañu koy xeexe. Mhm. wala dañ koy mais doole ju nu am dafay jariñ réew mi. nee nañu wax ma yan jigéen nga am ma wax la ban réew nga am. jigéen ñi bu ñu amee doole suñu réew day am doole. jigéen ñi bu ñu leen nootee suñu réew day nootu. kon nag violence boobu. la ñu war a fexe xeex ka mu jeex ci ba mu jeex ci Sénégal te violence nag boo ko déggee comme ni ñu ko waxee du dóor kese mm-hmm. du viol kese kàddu mm-hmm. am na ay kàddu yoo xam ne sax violence la moo raw dóor xas moo raw dóor yenn kàddu yi yépp daal violence la mm-hmm. donc euh, man ni ma ko jàngatee mooy dañoo war a am civisme xam nu ñuy waxee ak nu ñuy doxalee ak suñuy conjoint ba ñu mën ak suñuy àndandoo ak suñuy dëkkaalee suñuy entourage yëpp. ba mën a am euh, autonomie boo xamante ni violence boobu dina dañ. waa mu gën a wàññeeku sax. am nga am na beneen violence bu nga xam moo gën a sournoise. lu nga xam ni kaddu yu ñaaw. am nga léegi yaa ngi wax civisme. Mm-hmm. kaddu ñaaw léeg-léeg suñu nawle góor yi dañuy làqatu suñu gannaaw ni ñu dem leen wax lii. <laughs> loolu nag moom damay ñaan rek sama jigéen ñi ñoom bu ñu dugg si loolu. Mm-hmm. wax yu wax yu tegganiwul noonu masunu ko xam wax yu ñaaw noonu masunu ko xam nu fexe ba nga xam ni danoo reste digne la nuy wuti nag nu xeex ka ba am ka waxuma nag nu toog rek dinaa ñu ma jox baax na wala ñu jox la nga ni déedéet bàyyi sama càmmiñ lii mu dem wala bàyyi sama borom kër gii mu dem déedéet lu nu moom nanu ko jël si sutura ak teraanga dëgg la nan nga gisee réew mi temps yi ak politique bi ak tension bi ci am en tant que femme parce que euh, jigéen mooy ëmb mooy wasin moo yor njaboot bi ban taxawaay la ci jigéen war a am. Ah, man déjà dama am lu ma metti trop bu ma taxawee bu événement yi amee nii ay xeexoo yeeg yooyu ay doomu jaambur yi rek fa ne de. waaw ay doomu jaambur yi ànd ak ñu nga xam ne nag dañoo def lu koy lu sul noonu. Mm. dem dugg ci magasin jaambur yi di yàq di jël di yóbbu. loolu dafa may metti dafa may metti lool ndax yenn yi utiliser mm. ñeneen ñi la mm. ñeneen ñi nga xam ne ñoomit du ñu xalaat nu foncé rek nanu dem nanu fe man bu may bu may dem man 2011 euh, fanaan naa police mm. bi may kaas naan Ablaye Wade du am du am troisième mandat mm-hmm. mais boobu moo fa fanaanee mënoon fanaan nañ ma posé ña ma àndaloon M23 mm-hmm. mm-hmm. mënoon nañu génn sànni wu ñu sànni dañu dañu taxaw foofu ba guddi xam ne dañuy fanaan ñu dellu le lendemain matin ñu tabaxa taxawaat ba ñu génneenu mm-hmm. mais loolu moo doon forme de lutte yu njëkk yi. man léegi lii comprendre ma ka mm-hmm. te kat suñuy njaboot yi rek ñoo siy dee. suñuy njaboot yi rek ñoo siy dee. vraiment man damay ñaan ñépp laa la wax ñépp laay ñaan mm-hmm. ñu savoir raison garder wax dëgg yàlla ñu bañ dugg ci yenn yi. ndax man mënuma comprendre euh, génn barke démb démb si mbedd mi si ñaari citoyen yu nga xam ne ñu nga jëm. Ah. kii pour ñoom ñaar ñu àtte leen. Mm. lu si wote si mbedd mi génn yàq lu. ñaari citoyen la ñu ne ñu dem régler seen yëf. mën na am sax bu ñu demee daañu ko régler à l'amiable. wallaay wallaay wallaay donc foofu jigéen ñi am nañ fa responsabilité. parents yi même góor ñi am nañ ci responsabilité. parce que ay xale yu ndaw ngay gis ñu nekk ci mbedd mi. jógewuñu lu dul délinquance bëgg toj bëgg yàq bëgg sàcc. alalu jàmbur jàmbur. te fekk xamuñu seen i borom lu ñu def ba am ko. nguur gi moomu ko opposant bi moomu ko. da ngay daan sa doole ñaq ba taxawal sa benn affaire. Mhm. problème am rek. gaa yi mhm. xëpp sa kaw yàq loolu war nañ ko fi jëlee te loolu parent yëpp ci am part de responsabilité. Mhm. parents yi bu problème amee nañu téye seen doom yi responsable politique yi am na yu nga xam ni waruñu ko kafe. waaw am na yu nga xam war waruñu ko kafe. la stabilité de notre pays. Ah. war na ko kafe te lii ma gis man daf ma tiital. tiital na ñëpp daf ma tiital. na ñëpp tiital na ñëpp euh, madame le maire. Mm-hmm. ci si ci municipalité ba léegi nga nekkoon euh, première adjointe chargée de communication nga fa nekkoon. Mm-hmm. actuellement ban statut nga yor ci ci municipalité bii. Mm-hmm. ba passé ak euh, doxalinu municipalité bi nan nga ko gisee. bay passé chargé de communication laa wan wante amee administration général ak mm. bonne gouvernance bi ma yore ba léegi administration général ak bon gouvernance mm-hmm. ak intercommunalité euh, intercommunalité ak relation ak yeneen collectivité territoriale loolu laa yore fii mu nekk lu nga xam ne xaw na diis mm-hmm. mais aussi Euh, dan naan noo ko noo ko sàkk ko nanu ko nanu ko liggéeyee na mu waree ñoo ngi si bu baax a baax a baax euh, municipalité bi euh, comme yeneen yi yu fi nekkoon la de tuuti rek lañu ñu wuutee tuuti mooy ñi nga xam ni ñu ngi jóge si yeneen list yi ñoo xaw gën a bare tuuti mais ni ñu fi nekkee woon yeneen yëpp nekk kii Euh, opposition ak euh, ak ak ak ak parti au pouvoir noonu lañ fa nekkee jàmm ak salaam conseil municipal booy dugg sa conseil municipal wax naa la ka da ngay simmi sa mbubbu parti sol sa mbubbu conseil mhm. di doxal pour les populations mhm. di doxal pour sa dëkk fii amul ma sàmb amul ma demb mhm. ba ñuy def adjoint au maire yi sax dañu ubbi pour adjoint au maire opposition dugg si si président commission yi am nag ay ñu nekk opposition yu ñu dugg ñuy liggéey koon ensemble si benn plateforme muy la conseil municipal te léegi nag kenn ku ne bu defee sa warugar kenn ku ne bu defee sa warugar ndax ah, nekk élu local amul fay de benn c'est du bénévolat wante nag kenn neexaloo woon ba nga yëkkati sa loxo ni fal leen ma <laughs> comme yow yaa yëkkati sa loxo ñu fal la hmm. da nga war a liggéeyal askan bi hmm. te macha allah bari na fa ñu ngaa xam ne ñu ngi liggéeyal askan bi bu baax a baax a baax ma si profito di sargal sama nawle conseillers municipaux yi. mais aussi di sargal jigéen ñi nga xam ne conseillère municipale lañ fa ñu ngi góor jàmbaar lañu macha allah jàmbaar fàq tëdd ku yaa ngay dem si ay plusieurs commission nga bokk di liggéey si commission yi. adjoint au yi tamit di. di di di coordonné di si biir commission yi et cetera macha allah yal na yàlla defal jàmm. ba nga xam ni li nga xam ni ñoo ngi ki bëgg. si biir conseil municipal bi Amadou Mansour Faye nekk maire nu nu gën ko am am nanu am nanu ay résultats mais dañu bëgg Saint-Louis egg feneen fu nga xam ni dana raw fii lu bare. jërëjëf euh, euh, ci sunu région bi. ci commune bi. jigéen ñi tubaar fakal la ku nekk xam na ni seen yëngu-yëngu li ci ëpp njaayum jën la. transformation de poisson poisson séché yeeg yooyu njaayum légumes njaayum fruits di yëngatu ci mbay meeg yeneen ak yeneen euh, mairie bi est-ce que mu ngi leen di encadrer ak euh, su ma la laajoon léegi lan la leen mairie bi jàppalee euh, xam nga am na lu nga xam ni ba ñu mën ci soqaliku daal am na lu nga xam ni mairie mënu mënu ko mm-hmm. mairie du doon banque mairie du du financer mairie dafay def encadrement institutionnel appui lay def bu dee formation la bu ñu mënee def formation performance bu dee organiser leen ñu def organisation organiser leen euh, am nañu fi mu ne nii benn coopérative bu nga xam ni mairie bi moo ko tax pour jigéen ñi nga xam ne ñoo ngay transformer maanaam soppali. Mhm. yenn gàncax yi. Mhm. Euh, di fexe ba nga xam ni daañu accéder ci dara. Mhm. bu ne dañu bëgg entrepreneuriat des femmes am na fi benn adjointe au maire bu ñuy wax Maam Yaram Guèye mhm. di au conseil des collectivités territoriales moom ak commission bi si def liggéey bu rëy liggéey bu rëy bi du di si keesu maire bi lay jóge ndax keesu mairie bi àttanul loolu mais dañuy dem euh, nouer partenariat ak yenn ONG yenn kii pour mën a am loolu lu ko mel naka 3FPT ñoom dañuy def jigéen ñi dañuy def demande bëgg nañu formation si lii bëgg nañu formation fi léegi nag ñoom ñu dem lijjanti loolu ba nga xam ni trois fpt mi ngi formé formé na déjà ay jigéen yu bari bari bari maa ngi naan yaram il faut que ngeen capitaliser ko pour ñu xam ñaata jigéen lañu formé ñaata am diplôme et cetera kon nun loolu mooy suñu war a gor mooy encadrer mooy appuyer institutionnellement institutionnellement mhm. collectivité territoriale du banque ba di ba di financé am na ñu ngaa xam ne nag loolu la ñu foog toujours dañuy ñëw di def demande mais euh, bu boo leen expliquer dañ naan bëgguñu nu jox alors que c'est pas ça jii sax bu nu yëko yëkkati woon jox leen bis bu Cour des comptes nu ñëwoon lii lu tax ngeen def ko parce que bokkul sax sunu nomenclature budgétaire. donc da ngeen di former rek. bàyyi mais formation dañuy encadré. encadrement waaw formation bi dafa war a ànd ak encadrement. waaw encadré dañuy encadré. bu borom defee formation ba mën au moins mu mën a appliqué wu. c' est ça dañuy encadré appui appui technique dañu koy def. am na nañu ay kuréel yu nga xam dañu leen di gën a appuyer ku mel nag ADC dafay ñëw di leen topp di appuyer. nun loolu moo nu war wala ñii liggéey ba nga xam ne am na lu ñu bëgg mais il faut que ñu am ku leen parrainer. nun mm-hmm. hmm? dañuy bind pour parrainer leen pour ñu mën a jot ci loolu. d'accord d'accord bon en tant que adjointe maire su ma la waxoon nga defal ma bilan par exemple ci commune bi. ah bilan bilan ci commune bi c'est visible de xam nga damay wax leen li may faral di wax. ni 2014 euh, bi ah, ñuy ñëw. Euh, Amadou Mansour Faye daf daan wax dama bëgg ndar set wecc ndar leer nañ man mi xam. commune ni muy sonne mhm. léeg-léeg pour fay personnel am sax problème la ba pare xam yi tamit askan bi ni ñu mel mhm. du ñu xalaat ni euh, nettoyer baax na mais bañ tilimal moo gën te nit ñi ñoom xalaatuñu loolu ñoom fu leen neex ñu tàmm ma ne ah loolu de bala nu koy am man ba 95 bi ma fi nekkee ba loolu gisuma ko wante bi nu paree sunu mandat bu njëkk bi sept ans 2014 mhm. euh, ba 2021 ma xool ni waxuma ndar set wecc de mais ndar set na waxuma ndar leer naña de wante ndar leer na kon léegi sunu sacerdoce moo di mhm. sunu màndaa bi ndar set wecc ndar leer nañ sans compter nag yeneen yu nga xam ni mhm. ñoo ngi koy xëcc pour mu am euh, maa ngi lay wax léegi ni nun léegi nekk nañu ci benn association bu ñuy wax intercommunalité intercommunalité ndar Gandon Gandiol Fass Paal ak conseil départemental ñu def benn tànk mhm. ñoom yëpp ñuy xàcceendoo di dóorandoo fi mu ne nii li nu gën a bëgg tey jii mhm. sunu sunu prépation première moo di nu fexe ba nga xam ni mbalit mii nga xam ni moo nu sonal mhm. nekk benn décharge fële sa Gandon mu nekk benn usine bu nga xam ne daf koy transformer ba nga xam ni daañu si mënaat am beneen xaalis ndax mbalit alal la mbalit alal la si kaw nag nga transformé ko. transformé ko te loolu bu amee mooy sunu mbedd yi set nañu wecc su mbedd yi set nañu loolu lanu tënk beneen bi nu tënk moo di nu fexe ba nga xam ni daanu am si biir département bi mm-hmm. benn espace bu nga xam ni ay industrie yu mag a ne mairie bu ne ak président conseil département ku si ne di si gis sa bopp. surtout rawatina ak pétrole bii ñëw ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. il faut que ñu am lu nga xam ne mooy capté. yii ñëw loolu yi tamit nu koy wax zone spéciale zone économique spéciale loolu la ñu bëgg am itam si diwaan bi ndax bu yàgg ba léegi nit ñi dañuy fëgg suñu bunt. amuñu fu nu leen yu bu dee ndar la amuñu réserve foncière. Mm-hmm. bu dee gàndong la yi tamit amaguñu capacité ak financière pour accepter loolu. Mm-hmm. mais léegi ndey jii bu nu defee dank boobu. ndar dana si gis boppam pas dana gis ak collectivité territoriale yëpp nekk si département bi. macha allah loolu bu defee loolu barke Dembo Ndiaye euh, si début mois bi du premier au dix ñun ñëpp nu nga woon ko Rwanda ndax dan doon dem xooli pour mën a ñëw indi fii. macha allah mm-hmm. macha allah kon nag yal na leen yàlla jàppale amin amin waaye des na pàcc boo xamante ni war ngeen koo gestu bu baax a baax mm-hmm. baax si ndar. rawatina Pikine du ma sax pikin kese la mais Pikine ci gën a sonn muy assainissement bi. xam nga assainissement sax bu nuy xool du domaine commune domaine état la assainissement c'est pas transféré wante nun ñii danu sob de dañuy dugg si lu ne ñun fexe woon nañu ba am ay partenaires yu nga xam ne ñoo nu defal assainissement bu bu bu gendar ay partenaires ñu def ko te nun ñi noo nooy maîtrise d'ouvrage sunu ADC moo ko lijjante ba ñu liggéey ko ba mu pare bu pikin fii ñu ngi ci assainissement mais bii muy deuxième assainissement jamono Ablaye Diaw Chimère moo tëggoon restructuration de Pikine moo indi yoon yi mm-hmm. yoon yi ñu pavé tout ça ak am xam ne goudron sax mm-hmm. ak assainissement bi malheureusement assainissement boobu dañu ko des assainissement eau pluviale assainissement eau pluviale moo di ndoxum taw rek fay jaar. Mhm. leneen lu bokkul bu sa duggee rek mu bouché. Mhm. sa nga raxas sa jën ba pare ñëw sotti ndoxum jën ja foofu. Mhm. mu bouché nga fóot ba pare ndoxum saabu bi mu def bloc. bouché rawatina nag ñi nga xam ne dañuy dugal seen foos ra de ko foofu. ci canal yi léegi nag kanaar bi bu nekkee nii fee nekk bloc bu bu mais dootul dem. dootul dem bu demoon na muy def. dellu génn si dem si biir kër yi. loolu benn problème la moo arrivé Pikine ñu ni dañuy xool ak état nan lañ ko regle ñu benn indi benn entreprise ñun ni ñun dañu joxe suñu avis Amadou Mansour Faye joxe avis am ni dama bëgg mu nekk à fois mm-hmm. eau usée mais ñu defar itam eau pluviale xam nga loolu moo gën. Mm-hmm. Euh, mais as euh, entreprise bi dafa defayiroon heure bi waroon na fekk mu pare ngeen génn si góota moo defa dafa defayiroon mais mi ngi commencé waat di liggéey nanu ñaan yàlla rek loolu sotteeg jàmm ndax. mu commencé waat li leen metti ndax fi nekk nii moom. <laughs> <laughs> sonn nañu torop yéen nekk sax du gënal. li leen metti nun la gën a metti <laughs> mm. ndax bu doon suñu sago mm. benn population du am lu mu ñaxtu. benn population dañuy ñaan yàlla loolu sotti xam nga affaire kii nag moom marché dafa mhm. doy waar tey jii boo ñëwee ni ka kii la naaka mhm. bala ngay reprendre ba muy ñëw mhm. problème lay doon même entreprise bee fi ne yaakaar na ni dana dana dana sotti xam naa ni yàgg na metti na yàgg na metti ndax ñun bés bu ne dañuy jaar piki bu fi dëkkul it dañ fiy jaar. waaw waaw bu fi dëkkul it suñuy mbokk yaa ngi fi. yàgg na moom ndax dañ ko commencé ba pare. mu dagg yenn pavé yi bàyyi am tali yu ñu teggi tubaab dafa gën a yokk coono bi daal. suñu sañoon daal moom ñu jéem ko àggale am xam ni di ko kaas si entreprise bi tamit nous sommes conscients de ça. ñun mhm. lu nu dégg itam dañuy capitaliser yëpp suñuy nit yi dañ fiy ñëw tout le temps nawet rawatina. dañuy mhm. sax surtout nawet bi ay nit ñuy ñëw di dindi. Mhm. mais noonu ñuy kaase nuy nuy capitaliser noonu lañ koy yéegeewaat sa kaw ndax ministre de l'hydraulique moom moo yore assainissement bi muy Serigne Mbaye Thiam. loolu daal moom bu ngeen si jàppalee nit ñi moom assainissement rek a manqué Saint-Louis léegi. Ah, bi sax laay wax léegi moom set gi tubaar fa kàll la. mais aussi population bi am nañ ci part de responsabilité. Ah, ah, kooku moom il faut ñu wax ko. ndax euh, suñ la defaralee ba mu baax yaa ko war a sàmm. <laughs> na koy sàmmee wax nañ leen ko. lu nekk dafa am place am. ndox rek la war a yóbbu ndoxu taw lañ ko defee woon naam sax ba bu dee yeneen ndox nga ciy dem sax nga am sa tame nga segg sa kër ba mu set wecc nga jël la ca salte nga wut mbuus def ko ci takk ba mu dëgër def ci biir poubelle bi ndox ma mën a dem waaye nag population bi wax dëgg yàlla fi laa dëkk waaye dimbali wunu suñu bopp du du fii rek de fépp te du fii rek du fii rek fi ma dëkk laay jëkkee gis nga daaw xam nga assainissement bi nekk il bi dañ ko reprendre ndax dafa yàq woon. kër yi di boucher même bi ci laa doon dikk gis naa nu muy refoulé léegi. xam nga xam nga surtout taw bi jëkk taw bi jëkk dañu jëkk ak foofu fees ak ndox. Mhm. xamuñu lu tax ndox mi demul ñuy xool di xool ba génnee si benn tuyau mhm. matelas bu mag waxuma bu ndaw de bu mag. déedéet kay. dañuy cuire génnee si xar mu lëmm. Hmm. période tabaski sa kii yépp foofu lañ koy def. si biir loolu yi tamit il faut que nu am. beneen taxawaat nun nit nun citoyens yi mhm. il faut que nu am xam nga wax naa la léegi bañ ba ba nettoyé baax na mais bañ a salteel moo gën mhm. il faut que nu am reflex di bañ sànni fu ne bañ sànni fu ne bañ sànni jii ndar nag oto mbalit yaa ngi fee daw benn tasseuse sans compter charrette yi nga xam ni koñ yi mu mën a moom kay macha allah moom kay population bee des rek ñu jël seen matuwaay léegi nag il faut que nun nu am benn prise de conscience mhm. tey si suba maa ngi woon randonnée péres ñuy jox butéel nii nuy euh, naan euh, mais maa ngi jiit léegi ni dafa dafa naan rek sànni ma dem for ko ba taseeg benn poubelle ma dugal ko fa loolu moom nun moonu war. moonu war bañ di sànni fu ne. bañ di sànni xollitu gerte sax waroo ko sànni si mbedd mi. xollitu gerte waroo ko sànni bu fekkee ne ñoo ngee bale nit ñi am comportement bu baax. Mm-hmm. léegi ndar set wecc set wecc waxuma la ñii di defar. Mm-hmm. ñii di yàq set du gaaw. voilà nit ku nekk war nga am conscience waruma tilimal te loolu danga koy tàmbale ci sa biir kër. bu ma xollee gerte jël xollit ba yóbbu ca poubelle mm. su ma nekkee ci yoon lekk dara am naa sama saag wala am naa sama mbuus ma dugal ci ba ma romb poubelle ma dugal ko ci wala ba ma yeggee sama kër ma dugal sama poubelle vraiment bu ku nekk defee noonu suñu réew dina set suñu dëkk dina bi li mu def mooy kër gu ne am poubelle def nañ ko def nañ ko mais am nañu man mi présidente su quartier laa ci ñi doon séddale laa boobu. waaw mais dangay dem si kër gis. kër gu ne jox nañ gis gis gis poubelle ba ñu def sa ceeb wala ñu def sa ndox wala ñu def sa yére. loo poubelle yooyu pour ñu pour ñu te am na ni ñuy xalaate buñ sa jëmee nun mhm. suñu bopp nun nooy commencé si biir kër yi nun nooy bale lay bale lay nag jamono maam la woon dañ ko war a delloo si maam yi jàngal nañ ñu bare la jël sa tame lay ba mu set suuf si ba foofu la ñuy commencé pour séddale mbalit mi bu ñu paree daanu dem si jox leen ay poubelle yu nga xam ne ay couleur la yii ñu ni moom ngeen di def ay boutique recyclable ak résidus alimentaires yeeg yooyu plastique yi fee et cetera et cetera butéel yi fële daañu si dem te bu boobaa yi tamit jàng bu metti comportement bu nga xam ne tàmm nu ko woon daan booy bokkoon nu xalaat ka léegi te di ko jéem defe jéem di ko defe léegi loolu rek moo nu may mën a may nu am dëkk bu set mm-hmm. te dëkk bu set nag lu nekk ngi si wérgu yaram wérgu yaram lépp. sa dëkk dana naat. Mhm. ndax touristes yi daañu jóge fu ne. ñëw dëgg la daa si gis sa bopp ma mhm. gis si sama bopp keneen gis sa bopp. kon loolu man damay profité si plateau bi ma ne. Mhm. ma ñaan sama nawle jigéen yi surtout. ñu am réflexe di bañ tilimal. réflexe bañ tilimal waaw. xam naa ni jàmbaar la si nettoyé. foo leen fekk ñu ngay bale ñu ngay fobeere mais nañ si boole bañ. tilimal bañ tilimal setal ba noppi bañ a tilimal. setal day sax yomb faf tax bu boobaa dootoo sonn coono ba. ba nga doon sonn ci setal bien bañ a tilimal daal loo am rek ci mbalit walla ci mm. leneen. nga fexe ba yóbbu ko fa mu war a dem nga dugal ko fa macha allah. Mm-hmm. waaw madame le maire am na benn question bu ma lay posé xaw ma yéen la concerné xaw ma mm-hmm. ndar dëkk la mm-hmm. mu ngi màgg. bëri na ay oto. tubaar fa kàll euh, mais amuñu stationnement. lu waral loolu. noonu la te noo ngi see xalaat bu baax. loolu war ngeen ci xalaat bu baax. noo ngi see xalaat bu boo jaaree si avenue lemin Bey guddi. Mhm. waxuma la kaar yi. Mhm. kaar yi rang rang mm. rang. wallaay gros porteurs yi. moom ne n'importe quoi. noo ngi see xalaat bu baax. xam nga war ngeen ci xalaat bu baax loolu moom vraiment. suñu problème rek mooy Ndar dafa amul réserve foncière mais noo ngi see xalaat. ñàkk réserve foncière moo tax xëy na ñu bare sax nu koy jëggaani feneen. Mm. mais noo see xalaat bu baax a baax a baax. xam nañu problème yi xam nañ ko gi mais dafa am yu nga xam ni dafa nu laaj lu bare te léeg-léeg du ñu am lu bare. Mm-hmm. ndax sunu xaas yépp mu ngi jóge si li ñuy comporte si marché yeeg si transporteurs yi ak si euh, kër yi liñ fay jëlee. bu dul loolu rek mm-hmm. état la nuy dem fëgg buntam pour mu jàppale nu ñoom itam jàmbaar la ñu si mm-hmm. jàppale nu am nañu ay projet yu nga xam ne ñoo ñuy tax ndax ndar rafet na trop kii mais dafa bare taar taaram mooy fii la école yu jëkk amee fii la dispensaire yu jëkk amee bâtiment yi fii la ñu jëkkee si mhm. Afrique mhm. bâtiment yi yëpp ñu ngi nekk en ruine en xale yi nekkatuñu si ecole yu baax mhm. noo ngi programme di defar ren ren yi rek déjà daanul pare ñaari école pare nañu école Justin Ndiaye mais am na école yu nga xam ne pour ñu laal ka dafa laaj xaalis bu bare lu mel na que. Euh, kii Clé d'Or ak euh, ah, nañ fi école moom. bi nekk côté marché. Mhm. école nekkoon école de fils de chef. xayaar Mbengue ñooñu ay ay millions yu millions. dana egg dana romb 300 millions pour xayaar Mbengue rek ndax patrimoine la dañ koy réhabilité. Mhm. dañ koy rek comme ni ñuy réhabilité euh, cathédrale bi. xam nga Katawa dañ ko mhm. defaat comme na mu meloon mais mu beesaat. Mhm. kooku un milliard dugg na fa. war nañu réhabiliter gouvernance mhm. ak yeneen bâtiment yeneen bâtiment loolu dafa laaj xaalis dangay discuter nànk-nànk laaj nànk-nànk ñeneen ñu la dimbale nànk-nànk. mais loolu mu ngi bokk ko ci priorité maire. loolu mënuñu ko génnee suñu kees amuñu ko mënuñu ko école yu ñuy def. dafa am lu ñuy compétir ba ñu éligible. dañ naanu lii ngeen di def lii ngeen def ba ñu éligible ñu ne waa kay day am ngeen temps ñu xool ni lii dañ koy dugal si école yi lii dañ koy defee moo tax tey jii noo ngi si ñaari école yu ñuy def ren ak euh, Justin Ndiaye ba nu defaroon. Mm-hmm. mais dañuy continuer ak ak yi tamit am na benn école bu nekk goxu mbaaj école goxu mbaaj. Mm-hmm. yi tamit ñu ngi koy commencé di ko defar si beneen fond bu mu jógee. en tout cas fu nu mën a jëlee rek dañuy jël inti fu nu mën a jëlee dañuy ñëw defaraat ndax Saint-Louis dafa màggat. dafa yàgg première capitale. de l'Afrique française occidentale. première capital du Sénégal. du waaw tabax yépp tabax yu Sénégal fii lañ ko jëkk a def. mais dañu dañu toog di seetaan ba lépp màggatandoo. mënoon mënoon nañu def lu yàqu rek ñu defar ci saa waaw mais loolu man mënuma mënuma ko mënuma ko condamner ñii fi ne. Hmm. mënuma ko ne ñu jëkk ña. Hmm. ndax bâtiment yi seen bopp ñoo yàqu. réhabilitation ak lu mu mënti doon loo nar a laal laal rek du lu tuuti. Mm, dafa laaj alal dafa laaj alal réhabilitation. dëgg la dëgg la te bëgguñu yi tamit suñu patrimoine bi naax saay. Mm. dañu bëgg suñu patrimoine mel na mu meloon ba nga xam ni dana nekk toujours patrimoine de l'humanité laalaat mm-hmm. boobu. Mm-hmm. daf nuy jëlal ñu ne ñu dañ leen di dañ leen di kii ndax laalaat mooy taf yëngal. Mm-hmm. laalaat boobu mooy taf yëngal léegi lu bu boobaa Euh, UNESCO. Mhm. daf nuy déclassé dootuñu nekk patrimoine de l'humanité waaw dafa am ay pesanteurs yu nga xam ne ñoo si ne yu nga xam ni sañunu am yu nga xam ne sañ nañu mais am yu nga xam ne sañun hmm, euh, madame la lan mooy sa dernier mot. <laughs> xanaa kontaan rek si waxtaan bi vraiment hmm, defe naa ni ñi ñuy déglu kontaan nañu defe naa ni yéen tamit kontaan ngeen hmm. euh, xëy na bii mooy sama première fois ma ñëw fii xëy na tamit beneen yoon daanu ñëwaat toogaat fii mhm. waxtaanaat si yeneen ndax une de temps doyul mhm. ah. amoon na yu mhm. bare yu nga xam ne mën nañ ko wax mais déjà li nu wax rek ah man sama xol sedd na si xaw man nag yéen ndax seen xol sedd na seen déet mais noo ngi ñaan yàlla rek di fi ñëwaat di fi ñëwaat ndax bu fekkee ni eh, jokkoonteeg population bi rek nun da ngeen nu permettre nu wax ak population bi nga xam moom la a wax maa ngi leen di këram di leen sant jërëjëf ñu ñu ngi lay gërëm di la sant di kontaan lool si ñëw bi nga ñëw ci suñu invitation bi ndax am na ay points yu bëri yoo xam ni leeral nga ko fii am na ay points yu bëri yoo xam ni liñ ci doon xaar gis nañ ko am nañu donc mbégte bu rëy ci sa teewaay fii. noonu la ñuy sante di gërëm aussi personnelu groupe média yëpp la ko tàmbalee ci directeur bi daw Daouda Guissé ak ci technicien yeeg euh, caméraman yeeg monteur yeeg ñëpp daal képp kuy yëngu fii rek la tàmbalee ci directeur bi ba ci planton bi ñu ngi lay sant di la gërëm tey rafetlu sa taxawaay di gërëm aussi suñuy euh, auditeurs auditrice auditrices ak euh, suñuy internautes yu ñuy suivre depuis Suisse depuis Canada depuis France macha allah toujours ñu jot seeni i seen i seen i commentaires ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon nag ba beneen euh, dimanche à la même ci même édition jigéen ak jamono jërëjëf madame la merci.